saytu nga xam ne moom le euh, service ministère loo et de l'assainissement liggéey jëmale ko ci gàmm yi nga xam ne moom moo fi am euh, ñu ngi tàmbalee Medina Baye fekk si Serigne Baye Ibrahima Niass suñu jógee dañu dem kanam dañu dem Daouda Niass ak asal bi wàndoon li nga xam ne jàppoon nañ ne war nañ koo ci gàmm ji ndax li ñu donc va faire des c'est aussi la aussi besoin wala yeneen soxla yoo xam ne ci moom lañ moom donc ñëw nañu sëriñ bi fii rendre kon dañ ko def tamit yeneen kër yëpp te gis nañ ne daal li nga xam ne moom la ñu waxoon ne dañ koy def ci mum nga xam ne ñu ngi tegu ci yoon pour pour ñu def am nañ loo xam ne lii def nañ ci am na loo xam ne lii ñu ngi koy liggéey fi mu nekk nii te balaa gàmm gi incha allah dana dana waaw rek fii par exemple ñu ngi laajte woon ñaar téeméer ñaar téeméer yi ñu koy defar mu ne lu mat téeméer ak juróom fukk ak ñeent defe naa démb installé woon nañu ko ci des li ñu laajte woon ci camion yi nga xam ne ñoo bidee poste yi ci kër yi loolu tamit lim bi mooy fukk juróom yooyu yëpp ñu ngi commencé di liggéey am na aussi ay branchements sociaux dañ ci aussi def ay branchements sociaux ay kër yoo xam ne dañ leen di indil ndox ñett ñeenti téeméer lañ ci ci laajoon ñeenti téeméer yi dossiers yi nga xam ne yëpp mat nañu danañ ko def balaa gàmmu bi parce que dafa laaj dossier bi mat nit ki indi photocopie carte d'identité indi kayitu këram indi yëpp pour fay euh, ñaari junni yi ak lu topp ñu defal ko yooyu yëpp daal liggéey bi ngi dox fi mu nekk